ñu mënoon nañ toog en tant que parti xaar ba Macky Sall wax ñu soog a ànd ak ñu àndal waaye ñun ñoo jël suñu suñu bopp ñu xool Ismaïla Madior profil bi mu yor xam ne moom moo ma a yor maire bi ñu ànd ak moom Ismaïla Madior dama gis dama gis ay qualité yu baax nekk si moom ma xam ne ma xam ne Ismaïla Madior moom moo jore moom moo jore jàppale moo woo ko fii sama kër ma def ma def sama déclaration ne a Ismaïla laay jàppale Souleymane Madior na bañu ma si dara inshallah dina dinaa fexe ba ba sama yeneen responsable ba sama yeneen nit yi nga xam ne ñu bokk si benn ay parti yoo xam ñu bokk si benn bokk yaakaar naa fexe ba démissionné ba ñëw fii comme ni ma def ñoom ñu def ko ànd ak ismaila Madior Fall man dama man dama respon man dama man dama am yaakaar si tëngeej technocrate technocrate ak ñoo ko mën a defar waaye du politiciens yi fi nekk parce que ni ko ministre yi waxee sànq yow maire bi mënu fee nekk ñu jël ay nit di fi sol ay nit képp ku ñëw rek le casement say nit rek nga fay dugal yooyu ñoo ñoo liggéey dëkk dëkk mënoo ko liggéey Tëngéej Tëngéej neexul ba neexul depuis l'indépendance ba tey Tëngéej ñoo fi njëkk a voté lii ab Dakar yëpp Tëngéej la nekkoon Tëngéej moo doon capital bi mooy lépp Tëngéej bu ñu demee ba ay géejewaay di ñu di ñu comme ni ko ministre waxee sànq ay géejewaay di ñu ay Pikine di ñu raw la war a xoolaat suñu bopp ñi fi nekk ñëpp seen bopp leen fi nekkal waaye dafa mu Tëngéej Tëngéej nag moom li man li may ñaan Ismaïla Madior rek mënu ko liggéey sax dama bëgg képp koy cadre di doomu dëkk bi toxal la na ñëpp jógandoo ñu ñëpp ñu jógandoo ànd ak moom ànd ak moom ñu jël maire bi liggéey Tëngéej loolu laa bëgg. Tëngéej dañ ko war a changé sa Badou Mbengue ci Mbaye Ndiaye Ndioro ci Cora Fall ci Mbaye Jëg Diop ci Ndiawa ci Mamaya ci Daouda Niang Tëngéej mel ni fii lañ njëkk a voté élection fii à muy Tëngéej muy Ndar mooy dëkk yoo xam ne ñoom lañ jëkk a voté quatre élection si Sénégal. te warul dëkk ba warul mel nii tey tey ministre bi bu waxee géejuwaay Pikine raw ñu mais amatul sens tamit ak kees amul sens dëkk yoo xam ne duñu ville ñu dara ñu raw ñu mais amul sens